dama ne ñun les capitaines d'industrie ñun xam nañ fi Sénégal togg parce que may mun a dama ngay defar benn euh, convenant ñun dañoo bëri xarit un peu partout dans le monde parce que dañuy dem fu nekk gis nga su événement amee sa dëkk dañ lay woo téléphone Mamadou qu'est-ce qui se passe et certainement woo keneen woo keneen woo keneen donc finament da ngay dem ba yow mujj gi affaire bi da ngay da ngay mujj sonal et de ce fait et de ce pas si la ñëpp jug taxaw ne laa ça doy na mooy mën a su ma la waxee dëgg te nëbbuma la ma jox mën nga jël date bi ak jour bi nga enregistré nga denc Sénégal politicien dootu fi toog. politicien dootu fi toog dootu ko jiite. fan nga teg fu bëri dugg naa ci terrain bi dama lay jox benn. affaire est-ce que xam ma daaneel may ma daaneel ah. dama lay jox benn euh, ça m'a fait hmm. dama dem tourner. ma duggu Kaffrine région de Kaffrine ma dem benn village bu tudd Makoyop benn commune bu tudd Makoyop mais mun a figure-toi deux mille vingt et on est à deux mille dëkk bi amuñu ndox alors que am nañ ministre de la république bu fa dëkk am nañ maire de la ville bu fa dëkk mais mun a c'est c'est c'est